waaleykum kat yi sorewul surtout saoudien yi ñi borom sikkim yu rëy yi di tari aaye yu rëy yeeg sunna yi xamuñu dara parce que am na doo ko xam ne bu dul sa domaine rek mandu ca maanaam li ñu miin ñun bu ñuy giñ di giñ ci sunu sëriñ wala bu ñuy ñaan ñuy ñaanee ci sunu turu sëriñ ñu naan xaraam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بكو يتكي بانغوغي نيلي نيجرين زيار بنيان برمب سبحانه وتعالى ودفل التوفيق دفل kon vidéo bi ñu fiy dugal ci lañ bëgg a ñëw rek ay leeral yu tënku ki ci wax nag di mustapha Sy nga xamante ne tey bokk na ci ñi gën a réer ci Sénégal wax dëgg yàlla ñu mel ni bu fekkee ay nit dañ leen di topp ñu leen di gëlëmal daf ñuy fàttali démb benn téere bu ñu doon chara mu nekk téere bu am solo al imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala dat koy taalif muy al usulu sitta mu wax ci juróom ñaareelu cosaan bu mujj ba al aslu sadis mooy raddu shubuhat allati wadaha cheytaanu fi tarki alquran wa sunna allahu akbar kon dafa mel ni la ñu doon wax tey ji lañ ci gën a teg suñ bët mooy lan mooy cheytaane dafay indi li nga xamante ni mooy ay lënt-lënt teg ko ci diggante nit ki ba du mën a yegg ci alxuraan ak sunna loolu mooy lan mooy diabolisation te kii la lay def xam nga Moustapha Sy li muy wax yëpp dafa am ay contradictoire bu ne nee na ñi nga xamante ni xamuñu dara ñi nga xamante ni xamuñu dara nee na mu jox exemple ni ñu mel ni saoudien yi moy ñu nek Arabie Saoudite la chaque ni Arabie Saoudite moy rew mi nga xamanteni ben rew melu ni mom lolu mooy li yàlla dogal rew mo xamanteni kenn du fi bokkaal yàlla subhanahu wa taala la chaque nak ay monté mën na fi am ta lolu jamono yenente bi alayhi salatu wasalaam sax lolu mucc fa won kon jamono ju nek dafa bokku ci ni yàlla doxale borom subhanahu wa taala limu moñale aduna bi faaw bon am faaw lu bon am waaye Arabie saudi ci jamono jii mooy dëkk bi nga xamante ne li ñu tuddee bilaadu tawxid kon ñoom dañu contre saoudiens yi lu tax parce que li ñuy porté la mooy alquran ak sunna bi fahmi salafil umma loolu mooy seen dustour seen constitution mooy li ñuy àtte fii mooy téere yàlla bi loolu nag ñu ba dafee metti ba tax dañuy jaboliser yenn saa ñuy xas ba mën nañu xas sunna sax xas l'islam te duñ ko yëg parce que dégg ngeen ci biir xam nee na mooy ñi nga xamante ni comme saoudiens yi dañu am ay sikkim yu rëy mais sikkim sunna la sikkim sunna la bokk ci yoonu yonent yi nga xam ne dañ ko doon bàyyi bal yonent dafa digle ni bu kenn bu kenn wat li nga xamante ne mooy sikkim mooy dafa digle ñu yar sikkim sàmm ko aw firul liha waffirul liha arxul digle ci ay digle yu baari moo tax borom xam-xam yi li gën a wér mooy wat sikkim dafa nekk loo xam ne xaraam la kon mi ngi jabale sikkim te yëgu ko nee na borom sikkim yu rëy ñoom seen sikkim yu rëy ñoom saw ñeey ak ñeneen dul ñoom képp koo xamante ne mi ngi roy سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خمنا ني سكيم سنه لا كون موم ميغي جابوليزي لو خامتاني امانه صاح مو نيك مير مو خام منكو ген سي دين تا دوكاي كوم نيغا خامتاني ньо دون جابوليزي يونتي بك صحابي نان ني سين بير دانيو ري نانغام اك نانغام ني نيمو ني خيخ يالا واتي اب ايه قل ابي الله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كون موم ميغي واخ لو خامتاني امانه مو ген كو سي دين تا دو خام دارا parce que ki diabolisé wul maam ŋàññul li nga xamante moy saoudien yi dafa ŋàññi saoudien ak kep ko xamante dafa yor sen doxalin ci wote ci alquran ak sunna ci déggnu saxaaba yi motax moo tax mu leen di ngagn te loolu mën nako ko ci li nga xamante moy kefer wala yaad billah kon loolu lu jara bay xel neena ñi nga xam ñoy saoudien xamuñu dara xamuñu dara bari neen di tari alquran yu reuy ak sunna yu reuy waaw mais ku xamul dara ngay tari alquran ak sunna bu reuy nit ki même bu fekkee comme yonent bi ni ko waxee balli anni wala aaya benn xadis boo jotal sax loolu xam-xam la mais nee dañuy tari quran yu rëy ak sunna yu rëy te nee na xamuñu dara loolu nan la mën nekkee kon loolu contradictoire la kon li ko yóbbee rek mooy xat-xat bi nekk ci xol li ak iñaan gi nga xamante ne ñoom dañ koo iñaan li nga xamante ne muy sunna ni muy tasaaroo waaw nee na nag mu waxaat tamit mu ni lépp loo xamante ne du sa domaine na ci maando lépp loo xam du sa domaine na ci maando loolu kay alquran mom moy doxale non tey alquran bo xé rek nit ki yoo xam ne mën na ci gis bopam sunna tamit yonent bi alayhi salaam c'est la même chose kon lolou du waxi lo xam ne waxu kilifa la wala ko koo responsable la ay lépp lo xamante du sa domaine nang ci man lan mo fi dul domaine alquran ak sunna ci déglu sahaba dafa nek leer nañ bo gisé li di bidda nga li bidda la ngeen ko maytandiku bo gisé li nga xamante moy li shirk la ngeen li shirk na ngeen ko maytandiku li bokalé la bo gisé li nga xamante moy tariqa tay non lañuy doxalé ci not li nga xamante mooy nit ñi di leen jaamuloo seen bopp ngeen leen lii du diine yàlla léegi loolu dañ cee war a maandu bu ñu ci maandoo kon a yéeme alhamdulilah foofu ba ko déggee dama sant yàlla nee na ñun liñ miin ci Sénégal li ñu miin a def mooy bu ñuy giñ dañuy giñ suñu sëriñ xam ngeen ku ku mel ni Moustapha Sy xanaa moom xamul sunna yonente bi hadis bi gën a teer nga xam te ne donc xale yu ndaw si dañ ko mokkal hadisu Abdullah ibn Omar yonent mu ni inna allaha yanhaakum an taxlifu bi abaykum yàlla daf leen a ngeen di giñ ci seen i baay mais ku la tere sa baay kon sëriñ ñuy wax mu ne ñun liñ miin li ñu miin li ñu miin a def ñun mooy bu ñuy giñ dañuy giñ suñu suñu sëriñ bu ñuy ñaan di ñaan suñu turi sëriñ nee boo waxee ñun la xaraam ankay loolu yàlla si boppam moom dafa xaraam yonent ci ba moo ko tere dafa xaraam mais ndeysaan ñi nga xam dañoo réer tey di déglu ko mel nii topp ko jox ko li nga xamante ne mooy gët ak ay bët wax dëgg yàlla ñu ngi ci réer goo xamante ni gu bir la yàlla na yàlla jubal jubal mboolem ci leen kon li mu wax ne ñun li ñu miin a def alhamdulilah ba askanee ko l'islam parce que l'islam bu ñu ko waxee dafa am ay source du li ñu miin a def l'islam mooy li yàlla jàngale yeneen tamit sanat koy leeral alquran ak sunna bi fahmi salaf ma loolu loolu la waroon wax bu demoon bay jël référence dafa waroon wax ñun de li ñu jàng ci alquran sunna mais li ñu miin a def li ngeen miin dafa bokk ak l'islam li ngeen miin loolu yéen a ko miin ak foo leen ko jëlee seen i maam ak yéen a xam kon li wax deug yàlla ay waxi tapale ci xana fola kon giñ ci kudul yàlla dafa haram yoonte bu ni yàlla dafa leena tere ngeen di giñ ci seeni bay inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum hadith bo xamanteni ne xale yu ndaw dañ ko mokkal mom mi mu réere ko ba na ñu liñ min moy giñ ci suñu sëriñ parce que giñ moy lan giñ lu garaw garaw la giñ moy magal ka ngay giñ ci mom rawati na sax ñom ay sëriñ ñoo xam dañoo dé ba génn addu nek ci bir suuf xamuñu li xew naan dañuy giñ ci ñom loolu ga doon dara gënu ko garaaw ci koo xamante ne da nga ni nga njiit nga ay nit topp sa ginnaaw ay millions millions doomu aadama loolu mooy wane ni ñu dañoo nekk ci xurba mooy tumranke kon nit ñi nañu dem jàngi alquran ak sunna ci dégg nu saxaaba yi wallahi alladi laa ilaha illa hu alquran ak sunna ci dégg nu saxaaba boo ko comprendre yow xale bu ndaw bépp bidaakat bu taxaw sa kanam da nga koy faagagal parce que mënta indi loo xamante ni mënta indi loo xamante ni lu leer la lépp bépp lay bu mu indi nga daaneel ko parce que dafa yomb loolu dañuy fàttali kon démb li ñu doon jàngale mooy al aslu sadis ci téere bu am solo boobu ñett juróom-benneelu cosaan bi mooy raddu shubhat allati wadaa cheytaanu fi tarki alquran wa sunna mooy jabalisation cheytaan kon dafa teg ay lënt-lënt naan loo leen xamul na ngeen ci mandu parce que loolu du seen domaine mais yàlla subhana taala waxul loolu yonente wa jàngale jàngalewul loolu waaw dafa ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnas taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar kon bokk na ci digle lu baax teer lu bon boo gisee kuy waat ci ay sëriñ ngeen koy arrêté يعني مني يلا فلان ترى ين جين سيني باي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كوي جين نجا جين يلا ولا ولا غنوبي قلوا ينتي بجانغلة ما من يوفي نان يخاف من يسنس كي بيجود يك خاف من يدارك دني تري خراني سنة يوري يك بوخ يعني الله يسنا بيلف لف حرام لون خاف من لنتي ورا مانو نون لين مين الف ما مصطفى زبوا دجلة وخاف من وحني ياب أمو لين لو خاف من تين أمو لو كي تتلا دو خل دو قرآن دو سنة كوني تاي يونيك سوسيتي بيدلين ريرل ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu jub kon loolu lañ bëggoon leeral ci vidéo bi hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh